salam salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi di seetaan C'est télévision Pikine TV ak Pikine Biz tey nag Sista Ndeya dafa am invité bu mag kooku kenn dootu ko présenté ci àdduna bi artiste bu mag artiste comédien bokk na ci ñi nga xamante ne ni artiste danga koy tudd ñu koy nuyu di ko ziar di ko wax mu nuyu ay fansam ak téléspectateurs yi di seetaan télévision Pikine TV. Mang ngi lay nuyu bu baax. Euh, di nuyu chaîne bi nga xam ne mooy Pikine TV di nuyu waa Sénégal ñëpp nag di nuyu samay fans yu àdduna képp diaspora bi ñëpp la jaar waa rawatina yëmbal ga ma yeewoo nag di nuyu ñëpp nag nuyu naa sama mbokk artistes yëpp waaw ñëpp sama fans yëpp daal. Malaw moo doon nuyoo askan bi nga xamante ne ñoo safoo Pikine TV ak di ko seetaan say fans yi nga xamante ne dañ may laaj Ndaya. ana malo ci la la nek ak lu muy préparer say fan sax ngay déglu. di nuy wat bu baax ni wax ne maalawa ngi ni rek doon jëmm jo xamni ni ji xébu la waaw yalla xeer ko ci ar mu ci liggéey ah di and ak nak ñi nga xamni ñi moy wa sant yalla nek ci compagnie sant euh Adama gey di sunu matran sen ak fallu sunu président Aliou Diakhaté di nuy sama fan nak di wax ne maalawa ngi ni Euh, te bu jot mi ngi jéem boo leen ko gisu rek mi ngi jéem a xool nu leen di bégal. est-ce que maalaw bi ñuy jàkkaarloo ci écran bi est-ce que maalaw boobu moo mel nenn li ci mbedd bi nga xamante ne ci lay dox. Eh, maalaw bu defee nii tey comme ni mu def nii rek tey ni ngeen ma jëlee nii. maalo ba beneen affaire la ndaxte nee naa la euh, mbubb la suñ su jigéen dañ koy sumi wékk ko. waaw bu ñu si duggaatee nag dañ siy dugg ba mu neex bëggal Sénégal bëggal jaam ñëpp ñu bëgg mais dafa am ñoo xam ne mënuñoo comprendre loolu am ñoo xam ne dama leen di nuyu duñ ma fay naan maalaw bi la nangam nangam euh, xale yi sax xale yu ndaw yi dañ koy def mais xale yu ndaw yi sax daanaka ñooy tane mag ñi ndax xale yu ndaw yi xale xale rek la waaw bu la gisee rek na la maalaw def ay waay affaire yooyu comme ça euh, ma leen di wax ne la comme euh, ki nga xam ne mooy mécanicien bi tey bu dem bu nekkee si atelier ah di liggéey tenue ba muy sol dina tak iwil waaw dafa nani bo wacce ba sangu bo boo rombanteeg moom boo ko xamul do do doo wax ni ki mécanicien la kon ar lool la mbubu boy sol la la def mom ah dañ koy def ndax liggéey la métier la boko ko métier la ndaxte ñu ngi ci tedd ñu ngi siy bëggee suñuy wajur ah di ci fas suñu soxla kon dañ koy japp suñu fukki fukki loxo ak juroom Sénégal nañu waron taxawé ar taxawuñu ko Euh, ndax suñu baay yi fi nekkoon peut-être si jamono yooyu lu bëri ñoom bàyyiwuñ ko woon xel. bàyyiwuñ ko woon xel euh, mais nag tey boo demoon si yeneen réew yi tey seen i ndaanaan seen i artistes seen i comédiens dañ leen a jël fonk leen. li war a génn si ñoom si si li nga xam mooy budget réew mi ñu génnal leen ko ba ñu jàpp si dara mais fii nag Sénégal moom aar yaay demal sa bopp. ba xam la voilà si yeneen ak yeneen yenn saa ngi gagné benn marché publicité yeneen mais yow sa jëmi bopp comme maalo moo war a jàng loolu xam lool na lii kat daloon na suñu papa yeeg suñu maam yi ah man kat naa jéem a xam suma bopp am métier ndax terewul ñun dana am métier ndax man bu dul aar bi damay damay def finition yet law be laa ah. am naa sama métier wala mais bu dul loolu aar bi li ma si am peut-être maa ngi jënd bant def samay yóbbu sama pàkk ba fee li koy liggéeyal ak leneen ak leneen tey tamit aar bi lu nekk mën nañ ko se am. lu nu waroon taxawee tey muy Sénégal muy ñun euh, euh, si wàllu culture ki ko jiite gi ak ba si gouvernement bi euh, dañ ñuy war di jàppale bu baax a baax ndax Sénégal da nga fiy gis artiste bu feebar bay bay ba sonn ñu joobe ko si rajo yi ñu doog a nga dégg benn kilifa gu jóg. doog see jàpp ñu siiwal ko nangam nangam te loolu war na mën a ñàkk. ah loolu nag damay waxaat suñu gouvernement rek laa koy delloowaat ndaxte ñun ay sénégalais lan dëgg yàlla ay artistes sénégalais lan fii leen dëkk si réew mi. Mm-hmm. tey jii munuñ bu bu ñu jaaxlee fan lañ fan la ñu mën a wax suñu gouvernement donc duñu mën duñu dem beneen dëkk waaw duñu dem beneen dëkk. ñun artistes ndaw yi boog jug nañ si loolu. Mm-hmm. ak ñëpp ñi nga xam ñoo nekk suñu kilifa si ginnaaw jug nañ si loolu. di def léegi ah xoolatuñ sax nga feebar. waaw muy nga am xew banex wala leneen ak leneen léegi jug nañ si loolu kon deja waxatuma sakantuma ak nag ku feebar ñaan nañ yalla comme li nga xamni mo nek suñu mo ñu wessu nek suñu ginaaw waaw lool dañ ko ñaan nañ yalla fàtte ko léegi ñu nek suñu kanam la bëgg défar defar daal. waaw comme Sénégal dëkku jamm la té réewu teranga la té ñu ngi jublu ci li nga xamante moy ci élection yi lan ngay wax wa Sénégal ñu daal. dal rek dal di wax wa Senegal nañu dal ndax élection yi nek yag na fe am. nanu dal ñu tàmbalee ko bisimilah rahmaani rahiim eggale ko alhamdulilah rabbil alamin maanaam réew mi suñu réew la Sénégal suñu Sénégal la euh, ku koy jiite ki doomi Sénégal la ah kon ku yàlla dogal ni kii ko gañe nanu ànd ak moom kon nanu seddal mbir mi oyofal ko te xam ni ku yàlla dogal ni mooy gañe rek. gagné te doomi réew mi la doomi réew mi la rek ndax ñun ñëpp ñoo far doomi réew mi la. téléspectateurs yi doon seetaan télévision Pikine TV tey ñu nekkaloon ki nga xamante mooy artiste bu mag kontaan nañ trop maalaw te di la jaajëfal di la wax lépp li nga bëgg rek na la ko yàlla defaral. ñu ngi jublu ci at bu bees ci lu bees tàkk ak waa Pikine TV ak sama caméraman ak sama lakkal mati ndiku ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen wax ci beneen yoon ak Pikine TV sista Ndaya